ñu seedeel àdduna bépp ne kër sëriñ Fallu ci ndigal rekk lañuy dox bu ñu jógee di dem ndigale leen yëkkati bu ñu jekkee ndigale leen jekkiloo moo tax bi ñuy séentu bés bi laata weer wi di tàmbali Euh, la sëriñ bi demoon ca sëriñ Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal mooy sëriñ yàlla na gën a yàgg nekkoo a ah sa bisub wayjur wa day euh, <coughs> weeram a ngi bëgg a jub nak taggu ci euh yëgle si wuñ dañuy taggo ci laaju ñu digalit ndax bo nee sëriñ bi digal man nangam dang ko jox ndigal waye dañuy taggo ci mu ne kon nañu ko def nañu ko daa defee danaa ko and ak yeen yalla nako fi yalla yagal te wëral ko sëriñ Abu Baraka nak sante sëriñ Abdul Fatah mu santal ko bokk yépp gannaaw bu mu sante yàlla li muy sant yàlla mooy ñaanoon na daaw ñu fekke ren yàlla may nu ko ñu ngi ñaanaat yàlla ñu fekke waat déwén li ma ne kërug ndigal la nag dañu ko teg ci ñetti wéeruwaay yu dëgër lii waxe suñu borom la mooy lépp moo ne woon jullit yi lu leen yonent bi digal na ngeen ko def te li ko tàmbalee tey na ngeen fexe ba bu mu leen séen ci lu mu leen di tere wa ma aatakum rasulu fa xuduhu waaye yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam it ngir gën ñoo jegeleel waxe suñu boroom ji moo ne déet ku ñuy déglu ndigalam kat du yam ci man daal waaye fu ngeen àndatee di ñett sax jiital leen kenn déglu digalam sëñ mag bi bind ci ay mbindam ne bu kenn damm xat te amu ca ndigal laa tafaalu shay'an bi gayri idni fal idnu fi qabuli shani kon foofu lañu teg woote bi ne su sëriñ bi ne woon nañu ko fommit kenn dutu wax lu ca jëm desu ko nareete ndox